jërgeen leen seen doom jëf mbokk yi ànd ak ñun ci tournée nationale bu président Serigne Mboup bu coalition ànd nawle ñu dëppee ko diisoo ak say nawle président Serigne boobu nag ñu ngi wéyal euh, tournée bi fii ci euh, région bu Diourbel demoon nañ nag ci biir euh, département bi ak ci biir commune bu Diourbel président Serigne Boub dajee fa ak fédération bi nga xam ne moo ëmb ñi nga xam ne dañoo amee waay laago te nekkee ci biir Diourbel ñoom nag ñu rafetlu bu baax a baax jéego yi nga xam ne président Serigne Boub def na ko ba ñëw fekk leen fi ñu nekk ndax ñoom nee ñu mësu ñoo gis benn autorité boo xam ne déplacé wu na ñëw déglu leen waxuma la jéem a taxaw ci seen i jafe foofee ci biir njaareem am na kàddu yoo xam ne yëkkati nañ ko ak président Serigne Mboup ñu ànd teewlu ko. président Serigne Mboup maire Kaolack lii nga xam ne def na ko ci garab gii nga xam ne fi la handicapé yi di toog jàkkaarloog jumaa ji ba ñu fi dalee toog ba léegi addee ji nga xam ne indi na ko fi tey jàppale ko waylaago yi c'est la première fois nit autorité di ñëw ci garab gi bàyyi fi addee ju tol noonu kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko jaajëfal di ko ñaanal yàlla nag maanaam yaa ngi jaamu yàlla bu baax a baax a baax a baax am nga taqwa am nga diine am nga imaan kon ñu ngi koy ñaanal li nga xamante ni moom la yóotu ci Sénégal yàlla na ko ko sunu borom jox bu gënee ci moom gën ci senegal ndax nag gi nga sëriñ doo nga daara nga waaye jàpp nga ñu war a jàpp seet si nga ñu mat a seet si muy waay laago ak handicapé visuel yi ñaari carte lañ yor de tey laa la koy leeral ñaari carte dañuy yor seen kurus di wedd di la ñaanal yow mi leen fonk sànni jot ñu jël seen oto dem wooteel la. woy borom laago day am ségrégation positive pour ma wax la ne maa ngi koy gëstu barki dem bi ma ko gëstoo laa gis ne ci senegal buñ boolee woy laago yëpp boole ci albinos la 15 pour cent la de la population 15 pour voilà 15 pour cent de la population ku ko wote woon ci wote yi. ngeen fal seen nit kooku mën naa nekk président de la république 15 de la population active ku am 15 pour cent mën ngaa nekk président de la république ci vote yi ñu jëm. ñu wëlbatiku ñu ne boo dindee xëy na albinos la doon 9 pour cent kon ñooñu ñoo yayoo toog muy dox mooy toog ñu leen di fay salaire daf ci war. man ci sama programme loolu da ci am képp koo xam dañoo reconnaître ne ay laago waa laa da am laago waxuma la sax li nga war a am mooy am ay soins gratuits mais dañoo war a jël ci alalu réew mi dara di la ko jox parce que yàlla xañ na leen lum ñu jox ñun te mën naa nekk ndax am na ci yeneen réew yi dañ leen a war a jàppale ñi nga xam dañoo mën a liggéey ba nga xam ne nii benn investissement duñ ko def mooy ay centre yoo xam ne dañ leen tey former ngeen mën a produire matériel ba ngeen fay produire gratuit lay doon xëy na matière première bi ngeen di jënd dem teg ko ci marché bi te booba prix yi ngeen di am moo war a gën a mooy cher dañoo war a fexe ba nga xam ne nii niñ defee parité loolu lañu war a wax ne ëllëg kuy defar mairie sa liste boole ci cinq wala 10 pour cent wala 15 pour cent borom la way laa koy dañ ko cee war a def ndax ngeen toog fa ñuy décider li manqué tey ci waa laago yi mooy fa ñuy décidé duñ fa toog. ba léegi ci biir euh, Diourbel président Serigne Mboup ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ci tournée bi demoon nañ ci biir marché central bu Diourbel muy marché Ndoumbé Diop. président Serigne boobu jot faa dajeeg ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, jaaykat yi ak opérateur économique yi kenn ku ci nekk mu saafonte ak yow weccante ak yow xalaat déglu la waaye nag leeral la li nga xam ne moom moo jëm ci programme am ngir gën a suqali li nga xam ne moo jëm ci koom-koom réew mi nga xam ne moom moo di Sénégal. commerçant foo ko dégg ñu ne yokk ne prix rek dafa manqué rek boo feexee ba mu doy rek mënatul yokk prix ndax bu ko jaayul moromam jaay ko na doy yow prix bi fa muy jaar ca usine ba ci grossiste bi. ba mu dem ci détaillant bi ki nga xam ne nii da koy jaay nga dem di ko fitnaal xamoo nan la transporter xamoo lan lay fay taxe danga naan cent franc la jare fee rek moom na ko jaayee cent dix franc te ba wutul la moo gën a cher léegi nag nga fitnaal ko ba moom du ko nangoo jaay bu ko nanguwut a jaay kay prix bi yokku parce que marché noir day ubbi ko te marché noir kenn mënu ko limité ci sonal gi ñuy sonal commerçant yi bu ma yoree dëkk bi marché yi dana am accessibilité parce que marché foo defar defar nga dëkk ba. mbokk yi ba léegi ci euh, département bu Diourbel président Serigne Mboup demoon na ci euh, daara yi waaye demoon na it ci fi nga xamante ni moom moo di ci ndullo xuube ba ci ngaa bu fenn fu ci nekk kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk rafetlu nañ bu baax a baax jëfi président Serigne Mboup ak taxawaayam ci réew mi ak ni nga xam ne noonu lañ amee ci moom yaakaar. waaye am nañ yaakaar ci yow ngir sa yar ak sa teggin waaye am nañ yaakaar ci yow ngir bëgg gi nga bëgg sam réew. système bi nañ koy soppee mooy jox nañ ko ñi jàng tubaab mu mel ni mënuñu si dara nañ seet nag ñi nga xam ne ñoo yore daare yi ñu jox leen ko bu ko dee ñu doxal. tournée nationale diisoo ak say nawle bu président Serigne Mboup am na ay meeting yu am solo yoo xam ne ñu koy def ci biir gox yi ak gox-goxaan yi ngir gàttandu président Serigne leeral ko nag mobilisation yu am solo yoo xam ne ñu koy def ci yooyu le dëkk ba tax na ci biir njaareem amaloon nañ fa meeting bu mag a mag rawatina ci ndullo fépp mobilisation bu takk lool am nay kàddu yoo xam ne yëkkati nañ ko muy seen i engagement ñu ànd teewlu ko. senes bi nag ñi ngi nii kenn moomu leen ñëw moom seen bopp. am nañ yaakaar ci yow bëgg nañ nga jàppale leen ñoom it ñu jàppale la kon nag senes bi sëriñ a ngi nii nangeen ko jàppale bu baax a baax lépp lu ngeen mën nangeen ko ci def kon su sëriñ bu muy soxlaa dëkk bii ñuy nekk muy commune rurale Ndoulo 52 villages wër ko mu soxlaa nekk président war naa taxaw man jóg jàppale ko mbokk yi ñu teewlu lii lañ leen indiloon tey jii ci xibaar yi nga xam ne moom lañ leen di baaxee ci tournée nationale bu président Serigne Mboup ñu dëppee ko diisoo ak say nawle ngir leeral leen li nga xam ne moo jëm ci programme am di réewum Sénégal ñuy waajal élection présidentielle yi mu jëm nag ci waajal aussi li nga xam ne moo jëm ci parrainage loole loolu lépp moom lañ leen di baaxee saa su ne sant leen gërëm leen ci ànd gi ngeen ànd ak ñun dig leen daje incha allah ci yeneen xibaar jërë ngeen